tax lampa yi leer nañ moo leeral sunu àdduna dana nu ko sante Serigne Sall waa senegal raw ngi yéen ñi jamonoon teg Cheikh Béthio Thioune Maam Bamba mbir asalaamualeykum wa taala wa barakatuhu jërëjëfe borom Touba est ce que Serigne Touba Serigne amut morom bokk jullit bokki taalibe yi 17 avril daan na am waaye bii nu ngir lan weer wii nu koy defee ci la nu sunu waa ji dëdd woon muy Seex Béthio Thioune premier jour koor bu jotatee yoonu murit danañ ko xalam danañ ko xalaat muy jàmbaar ja nga xam ne lambi toppe moo ko màggal gi yaatal ko Serigne Saliou ne woon ko sax màggalay sama màggal bu bis bi daan jub si nag ñun ñii la Alaaji Mbàkke yu daan yebal man ak sëñ Moustapha nu fekk ko Madinatu Salaam mu waxtaan ak nun soññuñu dellu si murit yi. sëñ Mamor wax na ko léegi ci màggalu Touba na ci sëñ Béthio meloon nga xam ne euh, sëriñ Saliou moo ko jox ndigal ginnaaw euh, bu murit yëpp bokkee euh, a ndigalu a màggal màggalu Touba sëñ Saliou moo ko ne def naa sa màggal muy sama màggal def naa sama màggal muy sa màggal kon lam cey jële moom bu ñu bu ñu ca bu ñu ca ay yóbbaalewul ñun suñu màggal képp duñu ko mën a may ndax moom Serigne Saliou nag su màggalee euh, day mel ni promotion lay doon boo xam ne ku bokkul ci promotion boobu lañ nga cey jëlee ci màggalam doo ko jëlee ci màggal geneen loolu nag may gu yees la goo xam ne ci moom sëñ Béthio la feeñ ci biir may yooyu liñ fi mën a tudd te ku ne mën koo tudd ndax sëñ Béthio bu ñuy wax ci wàllu senegal day mel ni ci wàllu sëñ Saliou nee na ko sëñ Saliou defal na ko sëñ Saliou nangam te loolu ñun ñi xamul ñi ca biti duñ ko attan ci ñàkk xam sëñ Tubaay kan bu ñuy wax ci mayu sëñ Béthio ay yenn saay ab jullit mën koo dëggee fële mën a taf ay noppam ne laa lii de amul ndax du ko attan ndax sëñ Tubaa moom moo ne yaquudu lii kun fa yakunu haaji min ka bilaa xaqdin wala taaji moo ne sunu borom mi nga xam ne moo moom kun fa yakunu wom matal na ma kun fa yakun man ba nga xam ne li ma soob laa ciy def te kun mooy nekkal fa yakun mu nekk sunu borom ci loolu lay dogalee di dindi di def Sëriñ Tubaa wax ne sunu borom wom matal na ko loola kon ñun ñi ànd ak sëñ Béthio ñun murit yi gëm sëñ Tuubaa nga xam ne lum nu wax wóor nañu ne ak lu nu kenn ñun ah, lu ñu sëñ Tuubaa wax moom bu ñu ko gisagul rek xanaa ah, a ñàkk koo gisagum waaye wóor nañu dina fekkam dina fekk moom luy luy ñëw lay doon ci lu nu wóor moom ci luy am lay doon te lu mu wax gën lu mu waxul ñun loolu moom lu nu wóor la te lu nu leer la bu weesoo may yooyu nga xam ne sëñ Tuubaa bindu kayitam rek wax léegi ki wax na ko ne sëñ euh, sëñ Saaliw nee na ko ku la gis dem ajjana ku la xam dem àjjana te mu wóor ñu nun ndax sëñ Tuubaa wax na ko ci ci xas dëgg bi xàqi waj galkaar yi te ñëpp gëm ko waaye bu weesoo loolu ñu sëñ Béthio defal ba 17 avril bii war noo ñor ñu wan ko fonk daa bokk ci social bu fekkee ci nit ak nit la ñuy wax bu ñu xoolee li sëñ Béthio tey ñun ñii ku fi toog ak ñi fi toogul te ku sukk jébbalu ci moom mu séq ak yow loo xam ne a day mel ni li waay jur waroon a séq ak doomam la a dagg ay kër muy Touba muy mat Madinatu Salaam muy feneen ak feneen euh, dina ko jox ñii mu tabaxal leen ba mu yegg mu jox leen ñii mu jël ay soxna jox leen ñii mu jël ay passeport jox leen ne leen tukki leen ñii mu defal leen loo xam ne way jur day mel ni moo ko waroon séq ak doomam fépp fu way jur waroon a taxaw ak yow tey sëñ Béthio séq na ko taalibe bu ci ne tey ba bisam bii tey ah buñ ko wootewul woon mën na salaam nga mën koo wootee sa buntu kër ndax séq gi mu séq ak yow waxuma laa ah, mbirum Sëriñ tubaa bi nga xam ne sunu borom dani wàccewu ma jinni ak nit ci suuf loolu ñu jàmm ma ku ci nekk ci ñun sëñ Béthio fekk la sa biir kër foqati la wan la lan mooy Sëriñ Tuubaa a jàngal la siraatal mustaqim ba tax na lu lu nit mën a ndamoo ci diine tey te di ko wax ci lislaam sëñ Béthio bu dee alxuraan jël na ay junni junni nit yóbbu leen ci daara ju mokkal ko xas day sëñ yii li ci wàggar sëñ Béthio mokkal jàpp naa ne dina néew nit mokkal ko ci lépp lu lislaam woote ci tabaxi jumaa tabaxi jàkka mu def waa këram ñuy jëf ci liggéeyal yàlla boobu kon tey bu weesoo mbirum sëriñ bi ñuy wax tey bisam bii daa war ku ci nekk ci ñun def ci départ volontaire mooy def ci lu law loo mën ak loo mënul moom mi ko daan defal boppam te ñëpp xamoon ne mën na ko li nga wax léegi ne dafa war a doon tey loo xam ne adduna sépp ñoo war a xam ne tey daa yeesaat mooy ci tànku taawam bii mu fi bàyyi mooy tey ñu xam ne lekko ko Serigne waxoon ne ko ah, nangu nañ sa jëf ye woon yi tey ak yi ñëw suba toogaayam bii mu fi toog tey yoonu murit ak képp kuy jullit war a xam ne mbirum sëñ Béthio kat duy wéy du luy du luy du luy luy taxaw ñu war koo wane ci a nekk gim giñ fi nekk tey te mu bàyyi ñu fi ci saayir ñu war a wane li mu def ci ñun ci suñu diggante ak Serigne Touba lii day mel ni daaroon a annonce waaye duma mën a yaatal ci li ma bëgg a wax lépp ndax bis bi jàpp naa ni kenn waruñu cee gën a wax ndax day bis boo xam ni bu amul woon jàpp naa ni tey to jotaay bi ñu am duñu ko am démb damay déglu vidéo boo xamante sëriñ Saaliw dañu ko wax nee na topp gi nu topp sëñ beccu ak déggal gi nu ko déggal ndimbalam la noflaayam la kon ñun loolu ñu am te sëñ beccu may nu ko waruñu ko booleeg dara te bis bii di bis bi nga xam ne ci la daje ak sëriñ Saliou tey nag ñu tombeek ñu jóge ci coronavirus mu nekkoon mbas moom mu fi jaaroon mu mel ni nag mel na ni jeex na ba tax ñaari at yi yëpp sax def nañu ko waaye jàpp naa ni ren jii lanu fas yéene ñëw dellu ci fas yéene ko defee noo xam ni dina foo jot njort loolu nag duñ ci def lenn lu dul sant la sëriñ Béthio Serigne Saliou. ndax dajeem boobu mu dajeeg moom di daje bu barkeel bii mën a gis sëriñ Saliou boole ñoog moom ne ku jébbalu ci moom am ngërëmal yàlla boole naa leen ak moom def leen ko muy seen yitte defal ñu ba defal ñu lu luñ xamtikoon bis boobu bu yegsee li jaadu mooy ñu taxaw ci jumtukaay yi woo ci àdduna bépp ndax sëñ tubaakat njariñ la lu ànd tog lor mi daal di da koo wax léegi nee na woo nañ jullit yi woo murit yi woo tijaan yi woo xaadir yi woo laayeen yi ba woo ñu dul jullit ndax cant gi amul xeej amul seen ko yaakaar ne bokk ci rek ci la bokk ñun sëriñ Béthio foofu la ñu yóbbu kon bis bii di 17 avril ñu ngi ci woo àdduna sëpp ñu fekk si ñu fii ci madinatu salaam ci mbuur ñëw and ak ñun cant gii ñuy sant sëriñ Saliou cant gii ñuy sant le sëriñ Béthio sëriñ Saliou nga xam ni mbokki taalibe yi xam naa ne ku ci nekk bu jëloon kàddu wax fi mu nu jëlee ak li mu nu defal am na ci ñoo xam ni bi ñuy ànd ak sëñ Béthio booba dañ leen woon yéen ay dof ngeen booba xamoo leen li xew sëñ Béthio mii ngeen topp di def lii ngeen di def dinañ toog ba dinañ dem ba àdduna sépp xam ne yéen nekkoo leen ci dara ñu dem ba àdduna jox nu dëgg ñu xam ne sëñ Béthio mii àndal moo mat a àndal sëriñ Béthio mii nu àndal moo nu wan sëriñ Saliou moonu xamal lan mooy liggéeyal sëriñ Saliou kon bis la boo xamante ni cantaakoon yëpp ci war a dugg waaye war cee dugg ak fierté war cee dugg ak mbégte ndax cant gi bég tey bégle la kon ñi ngi ci woo àdduna sëpp fi mi amee nag mi ngi maddinatu salaam madinatu salaam mi ngi nekk mbuur képp koo xam ne jël nga autoroute à bi ci ku jugee dakaar boo ñëwee ba ci sorti Malicounda hmm. da ngay daal di wër rond-point bi daal di jubal tout droit ngay def ba ci pénc mi doo jàdd fen amul suuf jàddoo ci rang-rang jàddoo ci dara ci tali bu nooy nepp ngay daw ba yegsi ku jugee Touba autoroute ba ngay jël ku jugee Kaolack boo ñëwee sortie bi daal Malicounda la kon nag ñi ngi ci woo mbokki julli di ci woo mbokki taalibe yi di ci woo waa senegal ak àdduna ak ñëpp la bàyyiwuñu kenn bu nu sañoon daal cant gii di 17 avril képp kuy nit te sax nopp rek nga ñëw ànd kook ñun ngir bëgg na noo wane sunu cofeel sunu mbëggeel sunu am gi nu am sëñ becco te xam ne sëriñ Saali woonu booleeg moom ba tax na sëñ Saali ñi ngi sant bu baax te di ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm ñu fekkee ko te tal ko te kenn bañ a manqué ci début bi Maam Mor da ko wax nee na sëñ becco ci bisu weeru koor la ko def kon yëfi duubul nga ñaay la dañ cee war a yëlbu dañoo ware ni dañoo war a wane ni ci saayir ci bëtam bëti nit ci weer wii la mel ci lañ ko noppee gis waaye ñun am nañ lu ñu xam ci moom dem nañ ba xam ne fu nu nekk ña nga fa moom ndax loolu kat moo nu ko jàngal moo nu wax nañu sëriñ saaliw bi sëriñ bi làqoo ci saayir mu ne sëriñ saaliw day waxoon na ma ni wàlliwu yàlla nitub yàlla bu demee ba mel ni ku la làq su boobaa lay ëpp doole te ñun dem nañ ba mu leer ñu cëng ne sëñ Béthio mooy sëriñ saaliw kon nag ñi ngi woo bis bi di ci woo ñëpp képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah ak loo mën a doon ak foo mën a ne xeet goo mën a bokk waaso woo mën a bokk réew moo mën a ne ñu ngi lay woo nga ñëw ànd ak ñun cant gi ci bég tey bégle di ñaan sëñ Sall nga yàgg fi tawet di wax sëñ ba Bachir yàlla fi yàgg sëñ Mountakha yàlla fi yàgg waaye gars yi déggu ma leen de waaw bis bi kat ab jaama doon ab sangam ab sangam dem di ko fekki ñu daje foofee ñu daje foofee di ca taset ca toolu bàyyam boobee ñu daje nga xamante ni seen daje boobee yàgg na jëmm joojee tey muy bis bii nga xamante ni moom képp la ñu am ñun cantakun te mu ci daan woote woote bu rëy ba waaw daan dugg ci oto daan takki saretu fas di wërlu gaa yi defi caravane muy sant sëriñ Saliou ndax bis bii kat ak cant la naa wax na ko woo na ñëpp fépp fu Sénégal a nekk di ab julit ñu ngi leen di woo ci bis bi berne yi mate ko sëkk ndax sëriñ tubaa amul tànk ginnaaw waaw sëriñ bee ko wax lañ mënoon daaw ren lañ ko yokk fuuf ndax sëñ Béthio moo mel sëñ saa nee na ko li fekk say mbir di dox li fekk li fekk mbirum sëñ Tuubaa gi dox say mbir di dox kon euh, wax ji mu gudd mu gàtt sëñ saal ñu ngi sant di sant mbokk taalibe yi fu ñu mën a nekk ci àdduna jàmbaar lañu ñu ngi leen di jaajëfal jëwriñ yi topp jëwriñ yi les universels ñëpp am ñu ngi woo dinañ sant di gërëm muy góor ak jigéen Seydina naa Saliou nag wax na ko mat nu salaam PS bi rek da ngay tàllal ba bunt kër Seex Béthio waaw da ngay mbartalu rek bàgg foofee lañ koy def ndax ba koy wax naan ñëw fii la télé bi jaar boobu yàgg na ba koy wax dara xewgul boobu ay at la boobu àll la woon muy gor di fàkk di faxas di di ngeer yi di di di falang di dagg di lotissé di maye kër gu mu a am terrain bu mu mës a jënd da ko may ay taalibeem may leen soxna may leen kër ku am gone mu tudd lu waay lu waay bëgg mu defal la ko ku bëgg a tukki mu tukkil la génne la dëkk bi nga dem sëñ Mbéthio loolu la waral kon bis bii dañoo war a dañoo war a dañoo war a jaajuwaat yëlbu loolu gaa yi naan yëlbu waaw waaw. te ki ki gën ci ñun mu yónni ko ci ñun lim koy yóbbante iman islam ihsan soo bàyyi ihsan daanu kon ñu ngi woo ëttub Seydi Alaaji Malick si bàyyiwuñ ken di waa ëttu di woo ëttub maam rawaan ngom ca paal waaye di woo waa kër maam ahmadou bare njëgën ca Thiès ak Serif Abdou Aziz Aydara waaye yemu ci kat sëriñ baa ngi woo waa kër maam amari ndak Seck ca moom sëriñ bi ci diggante bi kat jàdd na Njaasaan waa kër sëriñ maam bu kunta mu ngi leen di woo dem na Kaolack ca lew na waa kër maam Khalifa dugg na Medina Baye mu ngi leen di woo yamu ci kat sëriñ bi tartambal na dugg na région de Dakar ku wax ndakaaru wax fukki penc yeeg ñaar mu ngi woo lébu yi bàyyiwul kenn waaye di ci jiital grand sëriñ de Dakar Ablaye Makhtar Diop di woo grand sëriñ sëriñ Ibrahima Diagne Basirou Diagne ñu di ko ci woo ci bés bi mu ngi woo sunu bokki laaye ni maam Seydina Limaamu ak li aju ci moom yamu ca kat mu ngi woo waa kër Cheikh Ahmad Foutiyou Tall bàyyiwul kenn ku lim doo matal waaye ñooñu bu ñu leen taxawalee ku déggul sa bopp war ngaa dugg ci biir kon kat sëriñ baa ngi woote ci bés bi kàddu gi may daanele nag moo jëm rek ci mbooloo mi muy bokki taalibe yi di jëwri daara yi ñëpp a war a déggan jogo yi bu sëriñ bi wootee woo àddina woo mbindeef yi woo mbindeef yi day mel na jàpp naa ne lu gën a jege gën a yey kon wooteeb sëriñ bi kat mel na ni bu nu góorgóorloo ñun ñi nga xam ne ñoo moomee bu sëriñ bi wootee ñun la wooteel ñoo war a togg-togg yi defar naa ni dalal gan ñi kon mel na ne woote la boo xam ne jëwriñ daara ju ne war ngaa rëppatal boo mënee fanaan si fanaan si soo ko mënul teel la egsi ndax ku woote yaa fay jiitu kon kat loolu maa ngi ciy soññ ñëpp maa ngi ciy soññ ñëpp di soññi jawri universel yi ñu tax ñu takkaayuwaat te xam ne dese nañu aw aw doxin bés bi egg seegul te liñ ci yéene yëpp mën naa ne kon ma di soññ ñëpp ñu xam ne sëriñ bi nag ci bés bi jàpp na ci cérémonie officielle mu ngi koy def diggante 4 heures jëm 5 heures diggante waajtaayu tàkkusaan ak tàkkusaan jëm ndogu buy buy matal ndogu yi daanu ñu mën a àndandoo ak moom ndogu mu mel daal sëriñ baa ngi ci woo ñëpp di soññ it nag jànkat alxuraan yi ak jànkat xasaay bi ak ñi yor kuréelu sikru laa ndax am maa daaw mu sikri foo akbaru min ku li makaar ni muridu yuksiru kon ñu ci woo ñëpp du nag ndax bu nu ko wéyalee ci loo xam ne ñëpp dañ koo bokk da ngay corfati daaneel sa morom wéy kon ñuy ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi te wér ñu ngi ñaan ñu fekkatu tal ko tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye fàttewuñu fàttewuñu jàmbaar yi sëriñ Mamadou Muntaxa muy sëriñ Mbàkke yu fay mi nga xam ne day lépp sëriñ bi sëriñ bi di léppam mu ngi ci woo ñëpp ci barkeb sëriñ Saliou bis boobu nag li mu ci woote mooy sant sëriñ Saliou ñun ñii dig njabootam dañoo waroon lépp lu ñu am sante ko sëñ Béthio waaye sëñ becco day niñ ko mën a sante ni ci gën a kawe mooy di ko santale sëriñ saaliw ndax loolu defoon muy diineem mu doon dundam moo doon addunaam moo doon alaaxiram ak cant la woote nag cant mbég la bernde la togg ñam yu bari te neex di ko joxe te doo ci am xejj doo ci am seen loo lii lañu fas yéene def ci weeru koor gi bernde ut suñu nag yu bari suñu gëléem suñuy ginaar njamala sax buñ ko amee dinañ ko tër sante ko sëriñ saaliw ndax leer nañu buñ ko defee mooy li neex sëñ becco ñi ngi ci woo ñëpp nag ni ko sama kilifa yi waxee ak sama mbokki jëwriñ universel yi ñëpp xaj nañ ci ndax ak cant la waajal nañ ko te sëriñ tubaa dimbali nañu teral nañu lépp lu bis bi aajowoo dinañ ko ci def ginnaaw bi universel Modou Diop Malaka woo tee woo këru diine yeeg woo waa lislaam maa ngi ci sauf les autorités administratives dinañ def ampliation yi ci war képp kuñ ko war a yëgal képp ku ñu war a tàggu ñu jaarale ko ci yoon ndax Serigne ci dafa respecté woon yoon muy gouverneur di préfet di maire ba ci président de la république fu ñu ko war a jaarale dinañ ko ci jaarale incha allah ñu ngi ci woo ñëpp muy bisub yërmande te ab bis la ca suba sa lay tàmbali njàngum alxuraan bi njàngum xasaayit gi ba ngoon gi ñu def ay ndogu fanaanee sant Serigne Saliou ni mu ñu ko jàngale woon ci mbég ñu ngi ci woo ñëpp di ñaanal Serigne bi nga yàgg fi te na daara bëgg nañoo bernde ñëpp ba ci daaray tarbiyee sëriñ Saliou yi jërëjëf Thioune jërëjëfati sëriñ Saliou Mbacke ñun ñii rek a war a gore moo tax jëwriñ am na nañu liggéey nañu rëppatal mbooloo mi nanu teg kaar yi gën a sori ci Sénégal rëppatal mbooloo mi te fekk si sunu sëriñ bii nu sowee nu sagalee nii munu sagalee tedd ngaam gii muy doxee wormaam yii muy doxe nii muy defee nga xam ni jox nañu lépp bàyyi na lépp ci loxo jëwriñ yi kon ñoo ci des sëriñ bi ñoo ngi ñaan nga yàgg fi te wër te nga amee ko noo ko mësta amee te nga yóbbu ko fu mu mësta yegg ci barkeb sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati sëriñ Saliou. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu nuyu bu tedd. di nuyu ñëpp ñu may setaan di yëkkati kàddu di nuyu tey siyaare sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou di ñaan mu yàgg fi te di nuyu waa kër Serigne Touba gépp di nuyu bokki jullit yi di nuyu képp koo xam ne yaa ngi may déglu bu ñu ñu déggaatee rekk mooy rek sunu bis bii nga xam ne mooy 17 avril daa ñëw muy bis boo xam ni ñun cantaakoon amuñu bis boo xam ni jàpp nañ ni bis gën na koo rëy ci ñun bis la boo xam ni moo nu tax doon ay murit kon moo ñu tax a doon xam Sëriñ Tuubaa bis la boo xam ni moo ñu tax a doon ay taalibe yu sëñ Béthio bis la boo xam ni ci la ñu sëriñ Saliou kon bis la boo xam ni ci la doone ay jullit bis bi nag daa dellu siwaat maa ngi nuyu sama rakk yu baax yi nga xam ni ñoo ma jëkk a jël kàddu wax fi wax ji ñu fi wax mu mel ni wax ji bu doon doy dañ naan doy na waaye moom day dara doyul ci moom moo waral nu yékkati kàddu di yeesalaat wax ji fi jaar yëpp rek ci xam ni nun de dañ koo war a sant sunu giirug dund moom day liggéey bi liggéey na ko ba noppi war nañu yoon wi yoon wi nag weesuwul sant sëriñ Saliou ci ñun bis boobu nga xam ni waxtu wii bu masaana ñëw ci la ko ñëpp daan ku ko gëjoon a gis ci nga koy gisee ci télévision yi mu ngir mu koy woote bis boobu yi nga xam ne daje na ko ak sangam ba di sëriñ Saliou bis boobu yi nga xam ne moo ko may lu mu am bis boobu yi nga xam ni moo ñu tax a toog fii tey di woote bis boobu moo dellu siwaat di ko yëgal sunu bokki taalibe yépp sunu bokki jullit yëpp di ko yëgal àdduna biir réew mi ak bitim réew gaa ñi lim nañ leen du soxla ma ci dellu maa ngi koy yëgal axlu Mbakke képp koo xam ne waa kër Serigne Touba nga maa ngi lay yëgal bis bi tey sàkku ci sa ñaan maa ngi koy yëgal président de la République son excellence Macky Sall ak l'ensemble de son gouvernement maa ngi koy yëgal képp kuy politique tout court maa ngi koy yëgal addina bi yëpp ngir bis amul xaj ak seen taamu nañ ci di ci def ay bernde yu yaatu te bari danañ ko fa amal noonee mu ko daan amale maa ngi ci sant nag lool man bokki taalibe yi ñu ko àndal cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci jàpp gi ci taalube gi ci rafetal gi nga xam ni saa su ñu ngi ko dëkke maa ngi leen di jaajëfal bi bis bi jege ak léegi mel na ni kenn noppalootul ku ci ne yaa ngi jéem a lijjanti nu bis bi awee yoon maa ngi santaat bu baax nag bis bi nag moom defaral na ko boppam ba noppi ndax bisu boppama te lépp luñ ci man nattab la wuñ ni moom moo ñu ko man la sunu cantuk bopp nag ci moom du nu wax ba noppi te duñ ko fësal mooy moom day li ko mate woon ci sunu ci ci ñun defal nanu ko def nañu ay ay taalube defal nañu ab xam-xam jiñtal ñu ci bëgg sëriñ Saaliw te loolu rek moo doon yitteem def nañu ay cantaakon def na ci ñun ab xam-xamub sunu borom loolu nag mënuñ ko ko fay defal na nu loo xam ni kenn ku ci ne boo xoolee sa bopp xool fu mu jaar ak yow bisam bii war nga ko koo fonkle ci noonu rek lay lay laay laay laay jeexale kàddu gi di ci wootewaat rek ñëpp fekk suñu ci te ñu xam ni bis la bu ñu war a fonk bis la boo xam ni noonee mu ko daan amale ca anam ba mu ko daan amale ci anam boobu rek lañ koy defal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu bokki bopp yi di leen ci woo fu ab bokk mën a ne ñu ngi la koy yëgal ñu ngi koy wax suñu way jur yi ak wayjur yi fu ñu mën a ne nañu xam ni ñu ngi leen di yëgal sunu bis bi ñu ngi koy yëgal sunu soppe yi ñu ngi koy yëgal euh, euh, jëwriñ mbàkki yu fay mi nga xam ni moo moo moo moo toogal sëriñ bi fii ci ndakaaru wa mbuur bàyyiwuma kenn ndax foofa lañ koy amale ca Madinatu Salaam mu tombeek set avril ñu ngi cey jiital waa kër sëriñ Saliou di tegtal ñépp ñoo xam ne rek sunuy bokki taalibe lañu sunuy bokki jullit lañu ñu ngi leen ko yëgal te di leen ko di leen ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax asalaamualeykum wa rahmatullah xat la jaa rabbi bima yasrahun asxaana xat fajaa bijaahi afdali man لله خاد لجاء حمدي لرب كريم من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا